salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax baal leen ma àq baal naa leen yàlla nañu yàlla boole jéggal ñu fekke ko ay déwén yi di wax fan sa maam Ndiaye Savon yëpp maa leen di baal te di leen nuyu di nuyu waa 200 people 221. maam balaa ñuy ci sa gis ne maam sant yàlla moom war na jaam te maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que foire bi réussir na macha allah li ma ci bëggoon lépp yàlla sottil na ko ndax fii ma nekk du marché zeng te sori na ak marché bi torop ma def fi foire c'est la première fois mu réussir kon loolu sant sant yàlla la ak julli ci yonenti parce que bi ma koy def dama doon commerce loo tàmmoon def def la dikkee rek nga ne comme savon bi maa ngi si dem mu xaaral ma moom man mooy sama liggéey commerce mooy sama liggéey te commerce yàgg naa ko def parce que moom laa njëkk def sama vie balaa may jaay diw ak saabu lu ma maîtriser la. Euh, fan yi mm-hmm. <laughs> loolu moom ak sant la rek ak sant Serigne Fallou Mbacké xam ne coow li lépp lépp lépp lépp ak sant la ndaxte tey ñu bari ñoo bëgg ñu coow leen te coow biñ lay coow na doon lu rafet te liñ may coow lu rafet la maam Ndiaye lii la wax maam Ndiaye lii lay liggéey maam Ndiaye lii la ci lu rafet la daal kon dañ koy sant yàlla parce que am na ñoo xam ñu ngi leen coow te li leen di coow rafetul. ñoom ñu bëri dañ Sénégal moo metti rek man bëriwuma histoire sama njaay moo metti su may jaay damay mel ni ko histoire bu làmp yi tàqee. am na am waa ran bi moom. Euh, ay pexe la woon rek ak euh, yu waaye sant nañ ci yàlla ak jullu ci yonent bi parce que xëy na moom borom ki ko def gisuma ko waaye réccu na ko parce que bi mu koy def dafa foogoon ni bu ko defee damay damay rey sama bopp pour fay ko prix bi mu ma waxoon waaye na xam ni dalu ci <laughs> ndax man dama ànd ak conscience tranquille te damaa am ay conseil même nit boo séqeek moom dara mu nekk sa nawle da ngay xaar ba bis bi jot te lim la wax def ko waaye nga génn pour wax pour dem ci koo xam ni tey jii euh, ñoom ñaar dañoo noonoo nga dem pour moom pour man ma jënd oto bi dafa gën a yàqal boppam daal ndax oto bi dina yàgg ci moom loolu. Mm-hmm. ndax xamoon xamuma ko woon waaye ki ma booleek moom ki ma booleeg borom ranse bi xam naa ne da doon jëflante xale bu jigéen bi. waa pexe la woon mais yàlla sottil na ko ndax nee naa la boroom ndey ju liggéey boo ko yéenee fan ne day reer ba reeraaleel waa koñ bi pexe la woon waaye sëriñ Fallou rek ñun la ñu yaakaar ndax lu ñëw da koy faxas mu jàll. léegi ba ba coono bi gis nañ gis nañ coono bi ku di wax mais ku la ci gën a ku ci gën a marqué ci say biir la ko muy waaw Adamo comme génn na leeral sénégalais yi ne moom xamul woon. xamul coow li nu mu demee moo taxoon mu rangé wu fee ah ma koy wax rek na xoolaat parce que nit da ngay mën sa nit nit da ngay mën sa nit surtout ma sa nitu démb koo xam ne da ngaa yàgg ak moom mu yàgg a ndax yow te boobu siiwoo moom siiwul ndaxte tey am na ko dugg ci directam di génn di leeral kooku xam na man xam naa dama ko yàgg taxawu Sénégal ne dafa nakkaree waxee parce que boo ne dama yàgg di taxawu Adamo dañ naan da daal na def lii wala lii ak lii erreur la woon te yàlla arrangé na ko man jàppalu ma kenn dara parce que man li tax ma xam yaayam man xale laa woon nekk ci koñ bi macha allah dama soboon di liggéey ay salon lépp dañ ko daan indi suñu salon ñu koy létt foofu. léegi sama benn xarit moo doon liggéeyal yaayam jànk koo xam ne suñu koñ la dëkk dama daan dem kër yaayam yaayam nekk nit ko baax te tey laa ko gën a mën a seede parce que man ragaluma kenn man du ma génn ci internet wax kenn dab man ne ma li nga wax yaa ngi dégg man amul ku nekk sama ginnaaw sëñ bi man. Mame Ndiaye dafay ma wax naa ko sànq te tey laa ko gën a mës a mën a wax su ma naree jël sama xaalis bi ma liggéey mu lew ma doom di ko fay nit pour mu waxal nit lu lu ñaaw sama alal gi ma am yal na tàq ba jeex duma def lu ñaaw. du ma wax lu ñaaw te duma fekk fuñ koy defee bu fekkee ni mës naa yónni nit mu dugg ci directam di fa wax lu ñaaw yàlla na ma yàlla rey mësuma ko def man du ma def lu ñaaw sëñ bi xalaatuma ko. xalaatuma di def lu ñaaw xam nga lu tax comme ni ma koy waxee sax su man dama dund lu metti jaar fu metti du ma teg nit lu metti ndax damaa xam li metti ni mu mettee kon du ma lu metti mhm. tey tey nekk ci ginnaaw ko dooleel yooyu def te xam ne ñu ko ñoom. waaw ñoom bu ñu nekkee ci ay ginnaawam di ko dooleel na ay mbokkam génn <laughs> wax laay wax affaire sow bis la na ay mbokkam génn te jàppale ko ndax buñ ko jàppalewul dina sànku xam nga lan mooy sànku bi parce que liñ koy defloo xamu ko xamul milieu bis te dañ koy utiliser te loolu baaxul te nit boo amul wéeruwaay da ngay neex bu max te kii xale la man lu ma def baal naa ko ngir jëmme Alaaji Fàllu Mbàkke ak weeru tabas korité bii ñu bokk man ak moom duñu benn gis nga borom caq du xeex ak borom baatu neen te man fi ma egg si fi indi sama bopp tey nit bu la jàppale ci àddina ba buux la ba nga egg kooku doo am ndam ci kawam ndax loo wax dala naan man maa la fi indi man amul kuy génn di intervenir maam Ndiaye fi mu nekk man maa ko fi indi te damaa bëgg man samay tànk yi ma leen yare man samay employé ñu jéem a def ni man. donte man buñ fi liggéeyee ba war a mën a ubbi seen i place bopp dinañu xam ne seen jom ak seen fulla ak seen personnalité moom moo leen fi indi. waaye duma ma wéeru ci kenn sëñ bi amul kuy taxaw ci internet bi mbaa muy génn maa muy justifié ne maam Ndiaye maa ko indi fii wala maam Ndiaye maa nekk ci ginnaawam man yàlla na ma yàlla jégal ci lii may wax du ma politique sama yoon nekkul ci kenn sama bopp ma doy ak bu ma tëddee lu may xalaat lu ma war a def ba génn ci am xaalis waaye du ma dugg ci ay affaire influenceur te yónniwu ma kenn nit man yónniwu ma kenn sénégalais dañu mën a solidarité bi ma ko dàqee bi mu génnee jooy sénégalais yëpp dañu ànd ak moom munoon naa def attentivement ndax sénégalais buñ la xasee ba dooleel dooleel na la mais dafa yàqaat lépp ndax wax ju bari ak ñi ko dooleel ak ñi koy ñi nekk ci ginnaawam te loolu du àddina. boo ñu koy wax euh, sëñ bi dérangé wu ma lu toll ni tarafatal ay ni man lu waayu wax ci àdduna déranger wu ma xam nga lu ta déranger wu ma gis nga saaga nday taqul fenn wax ju ñaaw taqul fenn nit wax la la la dara te lii mu la waxal du dëgg loolu taqul fenn. gis nga man yàlla rek laa ànd ak ak Alaaji Fàllu Mbàkke te ku ma ne bàyyi naa la ak yàlla dama koy gis te loolu noonu dama ci duut sama baaraam ku ma tooñ bàyyi naa la ak yàlla man duma ma tooñ man bañ naa ko ba damay ambiance su ma toogee li ma mën a jaayee sama produit ba vie ñëw loolu laay def du ma tooñ du ma waxal nit lu ñaaw musuma saaga nit ci sama direct mësul am lu dul kaf foo reetaan yàlla xam na lool. du gis eh, benn benn audio bu aadama gis ñu sa mel ne luy jooy ndax mën nga ñu mën nga ñu expliquer waat audio yooyu noonu ak ak loolu naka la demee. audio boobu xam nga kan la woon kañ la woon barki leeru alxuraan leeru arxuraan laa koy jiñ moom bi ma dàkkee xale bi ba mu génn Adamo vocal ma di wax ma ne ko bàyyi naa leen ak yàlla boobu la woon man xale bi amul benn preuve bu muy génne ne maam sa Savon ma wax parce que yow sëñ bi man aw ma jot nag ay waay man aw ma jot. man xam nga la laatal gis nga sama pax yi ni mu bare paxu diw yi gis nga ni mu bare nii man damay jàmb ay diw. taluma ay wax taluma dara sama direct bi bu ma fi nekkee du maam Ndiaye Savon keneen moo fi nekk Natacha moo fi nekk sama direct bi bu ma fi taxawee du maam Ndiaye moo taxaw jinne Natacha moo taxaw su ma génnee nag maam Ndiaye la man bu ma toogee sama direct bi lu nekk laa waaye duma ma dépassé nit du ma wax nit lu ko naqari du ma saaga duma wax lu ñaaw. man sama direct bu la neexee nga dugg ci commentaire yi jàmbaar rek ngay dégg jàmbaar rek parce que loolu laa leen wan. fi may fi man gis nañ bi nga ci direct ba génn gis nañ tamit mu dugg ba génn ndax tey bu ñëwaatoon rek pour juboo ngeen waxtaan pour pour juboo ndax ndax ndax maam pare na pour loolu. man jullit laa mais walita bëgguma tudd su turam sax man jullit laa baatu laay laaxa illa laa laay déglu te ñun ay jullit lañ waaye man ak moom nanu sëkk jàmm te yàlla tax waaye mënatul nekk xam nga lu ma bëgg. mu liggéey man donte li ma wax moo ma may tey li ma am waaye tamit na wax ji bari loolu waaye na liggéey bi gën a bari wax ci man samay wax dafa bari waaye liggéey bee gën a bari boo bëggee egsi fi ma egsi da nga ciy boole liggéey ak gëm sa bopp bañ a wéeru ci kenn doon gaynde waa di leen sant di leen gërëm di sant sama employé yi di sant sama yaay di sant sama papa ndax gis nga ne ñii ñëpp macha allah fii lañ nekk fii la ñuy daanee seen doole euh, ñu ngi ciy gis seen bopp macha allah ma leen di wax yàlla na ma yàlla bàyyee ñoom yàlla may leen gudd fan ak wér yaram ak wér ak wérle. tàmm leen daal te dara. bañ a dox sama diggante ak ñoom ndax ñu ngi fi nekk mi ngi neex ñu ngi gis suñu bopp di baalu sénégalais yëpp àq bu dee li ma wax nii dama ci wax dara loo xam ne waruma cee wax maa ngi leen di jéggalu di leen baal te xam ne nit matul maa ngi jéggalu tous les sénégalais parce que sénégalais yi dañuy dee ndax man sénégalais yi dañuy rayante ndax man sénégalais yi jour bu yàlla sàq ñu ngi may dooleel dofuñu parce que xam nañ fi dëgg yi nekk waaye ma leen di wax na leen ku may conseiller na ma conseiller liggéey bi mu gën a bari ka wax ci ñu dooleel ma di jéggalu ñëpp te di baalu ñëpp àq di leen wan ne képp ku ma seetaan ren bu déwénee yàlla nga ma seetaan yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ak wér ak wérle ci dara jëy Alaaji Fàllu Mbàkke kontaan naa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag